ci gàddaayam ga alayhi salaatu wassalaam fas yéene sof sunu kàddu ci kàddu yi nga xam ni sunu mbokk sëriñ saam yëkkati na ko ajjuma ji weesu te doon waxtaan ci azaka ndax dañoo tollu ci jamonoom te bu ñu tolloo ci jamonoom luñ ca mën a waxit du tax mu doy asaka di santaaneb sunu borom te sëriñ Malick Basin si yàlla ko yàlla dolli ay ngërëm ak leer daana wax ne <clears throat> seytaane bu sunu borom santaane mu ne am mu ne am naa ab liggéey mu ne ana luy liggéeyub seytaane mooy day fexe ba ku façon mu fexe ba sa pas-pas yolom ku fasutoon mu fexe ba doo fas dara kon nag santaane sunu borom bii nga xam ne dañoo toll ci waxtu waxtoom muy génn asakay mbay lu mat di fàttali la saa su nekk te baatub azzakaatu muy asaka bu ñu doon seet li muy firi rek mooy ak ak ak dolliku ak yokku ak barke baat bi loolu lay firi ak dol ak dolliku ak yokku ak barke te loolu ñépp ko bëgg muy mbir moo xam ne alquran da cee wax lu bare bare bare bari buñ yemoon ci wax yàlla jëm wax ne wa aqimu salaata wa aatu zakata warkau maa rakiin mu doy sëkk ndax yàlla bu diglee doy na sëkk bu ñu yemoon ca xadis ba nga xam ne moom la jibril doon laaj sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam di ko laaj ponk lislaam walla ñu yem ca xadisu muaas ibnu jabal mu doy sëkk ndax moom yonent bi lu mu santaane doy nab santaane waaye bu ñu yemoon ci ne jullit ñépp ñépp dañoo mànkoo maase ci ne asaka ponk bi lislaam la mu doy sëkk ndax jullit ñi lépp lu ñu maase loola dëgg rekk lay doon bu ñu yemoon ci wax ji ku baax ki wax muy borom pàkk bi islaamukum yaa ayuha sigaaru liman lahu dunya wa tilka daaru dikru lilahi wa salaatun wa siyaam xajjun zakaatun kullu di xadman yuraam bu ñu yemoon waxam jooju képp mu ciy lim ponki lislaam mu doy sëkk kon nag loo xam ne alquran da caa wax xadis wax ca boroom xam-xam yépp mànkoo ca sëriñ bi wax ca loola ku mu doyul ab day euh, dootoo am dara lu la doy ab day asaka nag du caagane day loo xam ne dañu lay tagg yaa baax yaa baax yaa baax nga di ko fab di ko joxe ca na mu la soobe ak kala déedéet asaka day luñ la gàll luñ la gàll nag mooy loo xam ne sañoo ko sañoo ko bañ te li tax ñu gàll la ko lislaam gàll la ko du dara lu mooy bëggal la njariñ tey ak ëllëg ndax lislaam bu sañoon ñàkk jóge fi walla mu wàññi ko lool lislaam bu sañoon ñàkk liggéey jóge fi walla mu wàññiku lislaam bu sañoon jirim wala baayoo seeni ronkoñ dana fer lislaam bu sañoon képp ku amul lu mu jàpp dana am lu mu jàpp wolof yi dañuy léeb ne suuf bu sutaatee dañ koo jal loolu waxi dëgg la ndax yàlla mi sàkk jaamam ñi moo yemalewul am na ñoo xam ne bu ñu duggee génn euh, ci seeni pexe ak seeni lijjanti mën nañoo am lu bari am na ñoo xam ne bu ñu liggéeyee mën nañoo am lu bari waaye am na ñoo xam ne lu ne mën nañ mën nañ caa dugg te du tax ñoo am lu bari أكبر الله أكبر أشهد أن لا سيدنا محمد moo léeb ne suuf bu suutaatee dañ koo jal wante sunu borom mi sàkk jaamam ñi itam moo def ne mënuñoo yem mu ne wallahu faddala baadakum ala baadin fi rizq te ku sañoon bu ñuy lim melo ñu gëm yàlla dañ ca gis sa bopp te yàlla bi muy lim melo ñi ko gëm da caa boole ñay joxe asaka dafa wax ne taasiin tilka ayatul qur'ani wa kitaabin mubin hudan wa bushra lil muminin alladina yuqimuuna alsalaata wa yu'tuuna alzakata wa hum bil bil axirati hum yuqinuun waaye ku sañoon tam bu ñuy lim melo ñi weddi yàlla doo ca gis sa bopp doo ca gis sa bokk sa bopp te yàlla nee na fa waylun lil mushrikiin alladina laa yutuuna zaka nee na toskari ñel na yéefar yi nga xam ne duñ joxe asaka wahum bil axirati hum kaafiruun asaka nag yi mu war mbokk mbokk yi waxtaane nañ ko ba tàyyi kon ñuy bay waxtu yi ñu toll ñu ngi bàddali seen mbay ku toll ci li nag ñu war laa fàttali azaka kuy bay ceeb walla suuna walla bësi wala saaño boo amee juróom-ñaari bërigo ak genn wàll am nga nisaab kuy bay mboq ak ñebbe boo amee juróom-benn am nga nisaab kuy bay gerte soo amee ñetti bërigo ñetti bërigo ak juróom-ñaar fukki kilo ak juróom am nga nisaab bu dee kii commerce nag euh, di yaxantu xam ngeen ne euh, bis ni ki tey tey jii bi ñu ko xaymaa fi or bi toll te ci or lañu koy natt ñetti million yu tegal juróom benn junni ak weccet mooy nisaab ku denc ñetti million ak juróom benn junni ak weccet ren ba déwén war nga ko génnal asaka te da nga koy diviser par quarante la cee génn di fukki junni ak juróom moom ngay joxe asaka kon ku denc ñetti million ak juróom benn junni ak weccet ren ba déwén war nga caa génn fukki junni ak juróom jox ko ña ko yelloo te ña ko yelloo wax nañ ko wax nañu ko ba tàyyi du jar ñu di ca dellu kii yaxantu nag na xam ne jumtukaay ya muy yaxantoo du ko xayma waale su dee wata buy daw wata bi doo ko xayma waale bu dee charrette ak fas doo ko xayma waale bu dee ay kër yooyu luye kër yooyu doo ko xayma waale la tey ruus moom ngay xayma boo dencee ñetti million yu teg juróom-benn junni ci xayma ay bis gi ñu toll ren ba déwén juróom-benn junni euh, euh, fukki junni ak juróom moom moom nga koy génneel jox ko ña ko yelloo yàlla jox la ko nag nga téye ko bañ koo joxe day lu raglu lu yàlla tëkkoo mbugalum àddina xaj na ca moom àllaaxira itam am na ca ndax bu dee mbugalum àddina yonent bi nee na nit ñi feeg ñi ngi téye asaka duñ ko joxe suñ boroom dal na di nattoo bekkoor te bekkoor yàlla nanu ci yàlla musal wax na feneen sax ne bu nu nag bayi may kon yàlla dootu taw bu ñu bañ a génne asaka bu tawee rek bëri na yi moo tax yàlla taw te sax bu doon réew moo xam ne lislaam la ñuy doxal ku téye asaka ne dootuma ko joxe dañ koy foqar ci joxe asaka nag nekk gi nekk santaane bi yàlla rek jar na di ko jëf ndax sëriñ bu mag bi fu mu mos a gis santaane bi yàlla wala mu dégg dégg santaane bi yàlla mooy la yitteem mooy mu man ca man ca ñépp mooy yitteem kon nag ñun ñi nga xam ne ay dong lañu bu santaane bi yàlla juree dañ caa man sunuy moroom la ca tege moo di nit ki su amee alal dafa war a fexe ba moom alalam te alalam bañ koo moom matière warta moom nit nit moo war a moom matière alal du liggéey nit nit mooy liggéey alal kon danga koy fexe not fexe fexe moom ba tey mën nañ cee jànge ne boo dee génn asaka day laabal sab xol ci jàngoroy nay ndax jàngoroy xol yi dañoo bari waaye nay ci la bokk wa man yuuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul soo ko dee joxe da tàggatu ci joxe sa alal te ab jullit rawatina ab taalibe dafa war làgg ci joxe alalam wa mimma razaqnaahum yunfiquun soo ko dee joxe gis ci sa wet ñu la ëppalee te ñoom duñ ko joxe ba noppi di gën a bari le fuñ toll ñuy gën a bari le te duñ ko joxe dangay xam ne yàlla moom wërsëg wi ki baax ak ki mel neneen ñoom ñëpp lay jox ki gëm ak ki weddi ñoom ñëpp lay jox Euh, euh, ki ki ki ki gëm ak ki weddi ak ki jub ak ki mel ne nen ñépp lay jox kullan kullan nu middu haulaau haula min ataai rabbik wa ma kaana ataau rabbik mahdura kon yàlla moom ñépp rek lay jox kon bul gis nit ci sa wet du joxe ëpp na la ba tax nga bëgg a yox yoxi boo dee joxe asaka na nga xam ne yaa ngi boole ñaq ak ñuqi gannaaw bu ñu santaanee nga dem bu ñu wootee nga dem bu ñu noddee nga dem julli ji bu ñu wootee ca toolee nga dem liggéeyi loolu lépp ñàkk la waaye ni ngay ñàkke nag deel ñuqi te joxe azaka ci ñuqi la bokk te dangay xam ne alal jii nga yor joxoo ko sa bopp dañ la ko dénk bu fekkonte ne yaay jox sa bopp kon kenn du la ëppale waaye saa su ne ngay dang dangi te tey gis ñoo xam ne yaa na a gën a sonn te ñoom ñoo la ëpple da ngay xam ne mbirum yàlla la dala koo dénk kon def ca lam ca santaane te soo ca day jëf lam ca santaane dalay sàmmal sa alal da koy ñoŋal da koy barkeel yàlla nee na wa ma anfaqtum min shay'in fa yuxlifuhu wa huwa xayru raziqin soo dee joxe asaka day tax nit ñi dañ lay sopp ndax nit dafa bëgg boppam soo ko bëggalee boppam rek dalay sopp nit ki nga dimbali dalay bëgg te itam dalay yéene la nga yor dangay jox nit mu ne la li ci des yàlla na barkeel ki naan li ci des yàlla barkeel yéene na la ko waaye ne ci wetu koo xam ne loxoom jotul ginnaawam nga di ko seetaan mu gis nga yor lu ne su la ko waxee ak su la ko waxut xolam dana am lu ci nekk ñaan gam lay ñaanal nag jar na ko منها منها اعتنى منا دعاء الفقراء مع المساكين لمن قد صبرا te nit ñi ku ñuy ñaanal man nga fee yàgg de wa amma ma yanfau nnaasa fa yamkusu fil ard ku ñépp di ñaanal man nga fee yàgg de te yàgg fi baax na lool te ñàkk a joxe asaka mën naa tax sa alal laatu sa sa sa alal sànku ndax xadis nee na alal ju sànku ci jéeri walla géej la ko waral mooy asaka ju ñu téye bañ koo joxe maa talifa maalun fi barrin wala fi baxrin illa bi xabsi zaka te asaka bu ñu ko dee joxe ñi ko war a joxe ñépp di ko joxe day tax ñi amul di gën di néew danga gis ku ñuy jox di ko jox waaye diir bu gàtt moom day joxe te nit ñi bala ñoo tala jaamu yàlla nag dañuy am xel mu dal dañuy am lu ñu jàpp nit ku jàppul ci dara xelam du mën a dal du tala jaamu yàlla moo tax yàlla ne fal yaabudu rabba hada al bayt nañ jaamu yàlla borom néeg bi yàlla mi nga xam ne ataamahum min juuin nit ki su lekkee ba suur wa amanahum min xawfin xelam dal dana tal jaamu yàlla kon nag nañuy joxe asaka ndax tax nit ñi mën a jaamu yàlla na ñuy joxe asaka itam ndax day tax la ma waxoon léegi kañaan ak mbañeel ak foñante da koy fóot ci xoli nit ñi ndax nit ki su ko wóoree ne li nga bëggal sa bopp nga ko bëggal moom it dalay bëggal li mu bëggal boppam laa yuminu ahadukum xata yuxibu li axihi maa yuxibu li nafsi kon buñ ko doon joxe yalwaan wàññiku ñàkk liggéey wàññiku bokk bokk bokk gu gu gu ñagas wàññiku yu baree bari dana wàññiku kon nag ñi ko yàlla jox nañu koy jox eh, ñi yàlla santaane ne nañ leen ko jox te te jox sa mbokk mooy jox sa bopp jox sa dëkkandoo mooy jox sa bopp jox sa mbokkum jullit mbaa sa mbokkum taalibi mooy jox sa bopp ñu ngi ñaan suñu kilifa gu mag gi yàlla na ko yàlla gën a gën a sàmm yàlla na yàlla gën a guddal aw fanam yàlla na ko yàlla dolli wér lépp lu mu sumb yàlla na ko yeggale te nu ànd ko ak moom yàlla yàlla daje bii fa fi daje ci àjjuma yàlla ba mu doon suñ mujjub daje wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 الحمد لله الذي أنعم علينا بهذه الملك الطاهرة التي لا ولة تشبهها ونستعينه ونستغفره من ذنوبنا لا رب سواه يغفرها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله أوصيكم بتقوى الله العظيم وأحذركم الدنيا فإنها كأحلام النائم وأنتم عنها عما قليل راحلون وإلى ربكم راجعون واستدركوا بقية عمركم فقد ذهب جلوا وانقطع وأدوا ما عليكم ما عندكم من حقوق العباد قبل أن تؤخذ من حسناتكم وتقضى وما fi kitaabillahi muddaxar ila yawmi alqiyaama wa antum fiha an amalikum mas'uluun yawma tashhadu alaykum yawma tashhadu fihi alaykum alsinatukum wa aydikum wa arjulukum bima حبة علا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره الحمد لله الذي أفاض على الوجود بحار النوال وصح على كل وجود صحائب الإهوال والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله بأمره داعيا وللصراط المستقيم مرشدا وهاديا فكان أشد الخلائق وأقواهم عزما صلى الله عليه وعلى آله الأكابر الكرماء وأصحابه الأشداء الرحماء وأتباعه الذين هازوا من السعادة قسما أما بعد فيا أيها الناس من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال قال الله تعالى إن الله يحب المتقين فلا شرف للعبد أعظم من أن يحبه سيدنا ومولاه وقد فاز من بادر إلى طاعته ولزم تقواه وآهر محبته على محبة كل من سواه ولقد خاب من شغلته عن ذلك دنياه وآهر على طاعة ربه طاعة نفسه وهواه إن استحيا عباد الله من ربنا أن يرانا أن يرى أحدنا فيما يقربه إلى الله متواليا وأن نزهد فيما ننال به محبته ونرغب فيه يصير إلى الدنيا فانية وأن ينظر إلى الصغار بمعصيته بل لننظر إلى عظمة من يعصيه ولنتذكر علينا حفظته تكتب ما نعمل وتحصي قال جل من قائل لديه رقيب عتيد يغفر الله لنا ولكم آمين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 wal ma inda allahi xayrun min allahi wa min attijaara wallahu xayru raasiqiin allah allah akbar sami allah liman hamidah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 ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغن من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها باقية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ويرى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 تشابهون الله الله الله الله أكبر الله أكبر الله